ahousu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi nga xam ne ni yéenay ànd ak ñun ci internet bi ci toubamourides.com ñoo ngi leen di jaajëfal di leen gërëm ci ànd gi ngeen di ànd ak ñun waaye xam ngeen ne ni ñu ko baaxoo defee ay bis bu nekk ñu fas yéene dikk ak yéen ci seen jataay bi nga xam ne ni moom la ñu dippee invité de la semaine tey ji nag kër gi dalal Serigne Abdou Diouf Serigne Abdou Diouf nag bu ñu ko waxee daanaka kenn dootu ko présenté ci biir réewum Sénégal ak bitim réew ndax jàngkatu xasiday Serigne Touba la waaye tamit nag taalibe Serigne Touba la ku ñu miin lool ci yoonu murit da ngeen koy faral di gis ci télévision bi ci màggal Touba ci njàngum xasida mi da ngeen koy faral di gis tamit ci kër Serigne si mu nekkoon itam ku mu nekk ku takko ku takkoo woon kon ak njabootuk Serigne Touba Cheikh Mamadou Fadal. taxo itam ak Cheikh Abdoulaye Mbacke Serigne Abdou Khader Mbacke képp ku fi musa nekkal Serigne Touba amoon na ak yow kóllëre waaye am na lu mu seqoon ak yow waaye Serigne Moussa Fassi di jàngkatu xasida boo xam ne nii kenn dootu ko présenté ci yoonu murit ndax bokk na ci ñi daan jàngal Serigne Touba Serigne Moussa Fassi moomu am na lu mu def ci Serigne Abdou Diouf mi nga xam ne tey moom la ñu dalal kon nag dañ koy bàyyi mu nuyu leen yéen mbokk yi su ko defee ñu soog a dikkaat nag ci poñ yi nga xam ne nii danañ ko leeral ci biir jotaay bi.
asalaamaaleykum. wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yëpp bokki taalibe yëpp maa ngi leen di nuyu nuyu bu tedd bu ànd ak ñaan di ñaan ci yàlla ci barke Cheikh Abdoul Ahad Mbacké barke El Hadj Mouhamadou Fadil Mbacké barke Cheikh Salif Mbacké barke El Hadj Mouhamadou Lamine Baara bi nga xam ne moom la sunu borom dénk lim ko dénk tey. ci lislaam ci yoonu murit boo gisee may ñaan ci barkeem dañoo wax ne ku tudd yàlla te tuddoo Moustapha du ko saf salla alayhi maal asrabi te alaaji Mouhamad Lamine Baara alaaji Mouhamad Lamine Baara sëñ Baara Mbàkke lu ko sëñ fa lu tuddee waaye sëñ Baara Mbàkke moomu Cheikh Mouhamad Ahmadou Lamine Mouhamadou Rasulullah la ko sëñ Tuubaa tudde Ahmadou Lamine moomee nag dafa mel ni moo te tey yor yor yoonu yoon muru tey moo tax nañ ñaan ci barkeem kuy digg sunu kaddu pajab aajo ma nga xam ne yàllaa ko yor ak fa nga ne yàlla na la fekk fa nga nekk faj sa aajo te nii mu nga xam ne noonu lay dogalee ak taw nga xam ne bu dee taw bu ko neexee penku tooy sow tooy xibli yëpp tooy mën na koo dogale kuy dégg sunu ñaan gi rek nga bokk ci biir ñaan gi barki Cheikh Mouhamadou Lamine Bara kon nag xanaa du barkeelu ci xasilay Sëñ Tuubaa yi ni nga ko waxee رفعني إلى الجنان جيم ولي شوايا سواسي الرجيم رفعني إلى الجنان جيم ولي شوايا سواسي الرجيم ترجعني العين والفجار كم بديع العالمين جار ترجعني العين والفجار كم بديع العالمين جار أكرمني بديه بالكتاب وسنني عن جالب الهتاب لم ينني إلى دخول الجنة خير مسادة لسلم لم ينن زج ولا وهيد وأمري إلى الجنان هيد أغفاليا سر المصون الله حبا ولا إله إلا الله هداني الله وإنه البديع وخادني له بأنواع بديع برهني خالق من سواه وخادني من لا يرى سرواه كتاب ربي كان لي وكنت له ولله بي سكنت ترجعني الأكدار والمفاسد سلامة من جانب اللباس أكرمني له بشكري وما لاختاره ولي خاد له وما بحبي الله كرام القراء وببقائه النبي مصرا هبات الجلال والإكرام آمين لقلد المراقب الكرام إلى يقعد الله ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن لست أسك أبدا في كوني جار البديع عجبا للكون إن الذي من إله يسوع خابني كروا فيه فزت دلني الله على الله بلا تعقل وأمري تقبلا خابت خلاتي مال وسادي مسمى وسبلا كسادي وخاني الباخي به شبورا تجارتي لديه لم تبورا لم ينني مباني الله فضل ولا إله إلا الله يقود لي بلا انتهاء ثمني من كان لي ولي صفا ثمني جاورت ربي لساني الحربي بلا رعاية وتابر خربي نشأ للإسلام عند خربتي لدى الجزائر منير تربتي نشأ لنور لساني والكتاب أثمان خدمتي لدى الكتاب تسير ما ثبت للمسفي أغنى يميني عن أسد وبالفهي هداني الله وساس علينا إلا سوى أمري أبس المؤين بسم الله الرحمن الرحيم الذي لم يخلق مثله بك لم يبدو مثل مسلمد سرا وجارا في البرايا سمد لم يبدو مثل مسلمد سرا وجارا في البرايا سمد مدن الإسلام والكرماء وبالنسب كل السماء يقود بالسائر والباطن من أتاه لله في كل سمم خدمته أن يباسبت والاستقامة وصبر وعبد لبان كون المستوى رئيسا لكل من قد فلل رؤوسا خدمته فوق كل رقبة من شعار قر كل من خبا محمد محمد محمد مثال لم يأتي محمد محمد محمد محمد مثاله لم يأتي فيما مداه أبدا لا يأتي ثبت عن ربنا لم يرد مثله مثله ومثله لم يرد لو سيادته لو براءة يا مرس ولا انزفى والنبي ورسوله والخليل والنبي ورسوله والخليل هو النبي ورسوله والخليل وهو الحبيب والإمام والدليل هو النبي ورسوله والخليل هو الحبيب والإمام والدليل برعه بد من خير جمال وسنو قدوسا خير كمال كان النبي المنتقى محمد كان النبي المنتقى محمد خير ورع مقدار عند السمد وجهت كل الودود السمد ساخدمة المصطفى محمد الحمد وشكر مهن لله على النبي ولد عبد الله الحمد الحمد وشكر مهن لله على النبي ولد عبد الله لله بسلاكيم عن قريب مع النبي ولد عبد المطلب بدل اسم هدو بن خاسم ربي بجاه مصطفى بن هاتم لجهدا ربي بن علي غدنا بالمنتهى المقدار من عبد المناب رؤية سجابة بالمخفية ربي بالمقدار من خسية أرسلوه أرسلوه إلى المناب بالإسلام ولا غرور بالنبي من كلاب لجد بخيري وفنيه مدرة ربي جاي مصطفى بن مرة طيب فادية طيب عادية من أولي سبيل أبدا بمنتقى من كهبه انصر جنابي عند سير وادر ولك خرم بيجي النمودر تفضل الى ربي المسار في في قيل عن والنثار حديثني يا قيل هاد قد وهاد انجتني وحده بافضل المآد وهبت لي فضني للجنان وهبت لي فضلا من الجنان وهبت لي فضلا من الجنان يرفو كل بالنبي أدناني بركة الصديق والفاروق جامعة المجموع والمفروخ أرمى بصنورين وولد شبتين في دارين سبت ثبت صحابته نبيه الأتقياء الإمور الوان ومجل الأرفية نفى لين من له أيسوم نفى لين من له أيسوم ما لدى فجند معصوم رفع أهل بدء إسلام وسوس الفجار والسلام بحب ما يسوء الخناس وصرم الوانا خناس بل أنا التوحيد والفق مع تسوف بمن إذا كما أدية الله الودود السمد أبخريات بنبي محمد بركي شيخ بلان بركي بلا يرمني
jërëjëf Baye Abdou Diouf ñu lay gërëm bu baax ci njàng mu solo mi nga xa- njàng mu am solo mi nga xam ne ni kon moom nga ubbee jataay bi ak kàddu yu leer yi nga xam ne ni jot nga ko yëkkati ci ndorteel yi ñu leen ko waxoon mbokk yi ngeen di ànd ak ñun ci internet bi ci ñetti w toubamourid.com ci seen jataayu invité de la semaine jataay bi nag ngir ngeen mën koo dégg am na ñoo xam ne ni dañu ci jàppale lu demee ni que waa kafaal ak ñeneen ak ñeneen di ko wasaare ngir àdduna wërngal këpp di ci mën a jot di ci jariñu rawatina ci xasiday Serigne Touba yi kon nag da ngeen di déglu tuuti rek ñu dugal lu jëm ci wàllu publicité kafaal boobu bu ko defee ñu dikkaat ak yéen ci li nga xam ne moom moo di jataay bi حق البكاء على سادات أمواتي تبكي الأراتي عليهم كالسماوات حق البكاء على سادات الأموات تبكي الأراضي عليهم كالسماوات
asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki sénégal xibaar bu neex bi ngeen doon xaar yegsi na kafaal mi ñépp doon xaar bil na leen ay buntam teru dëri fiski kilomètre 13 virgule 7 lépp lu ngeen soxla ci wàllu alimet jokkoo leen ci ak waa kafaal gannaaw bi ñu taxawee ab diir ngir saytuwaat liggéey bi dem nañ bitim réew delsiwaat ak ay feem yu bees ay jumtuwaayu xarale yu kenn mësul gis alimet yi nga xam ne ñoo ngi koy liggéey kos mu tàkk la tudd teyit bant bi dañu ko saytu liggéey ko ci anam yu sell mu dëgër lool wuuteeg beneen almet bu dul moom almetu kafaal neex naa xàmmee lool xott bi dafay bëla ñu def ci nag benn boxeur boo xam ne moo fas yéene jóg ngir boxe bépp xeetu almet bu dul moom ndax xam ngeen ne roy du niroog piir almetu kafaal dangay kos mu tàkk te bant bi dëgër na lool du gaaw a jeex te bant bi mën nañoo wax ne ci la qualité bi gën a feeñee ci la wuute itam ak yeneen almet yi fii lañu koy defere ci réewum Sénégal doomi réew yi ñoo koy liggéey saytu ko ci anam yu sell te wóor kon nag jaratul kenn di jéggaani almet bitim réew askan wi rawatina suñ mbokki commerçant grossiste yi daw leen gaaw seeti waa kafal ña nga nekkee ca rue de Rufisque kilomètre 13 virgule 7 numéro téléphone yi di 834 01 17 wala 834 06 30 fax 834 41 77 boîte postale 20 44 ak kafaal bépp gàllankoor ak jaaxle bu ngeen amoon ci wàllu almet jeex na tàkk bu ngeen fa demee di ngeen fa fekk ay liggéeykat yu sawar lool baax maanu mën a maslaa te jàppalante ak askan wi rek tax leen a jug aa mbokk yi suñu maam daan na wax naan séddale daal ca kudduy njëkk ya حق البكاء على سادات أمواتي تبكي الأراتي عليهم كالسماوات حق البكاء على سادات الأموات تبكي الأراضي عليهم كالسماوات
jërëjën jëf mbokk yi gannaaw loolu ni ñu leen ko waxe woon ñu war a dugg nag ci ay poñ yu am solo Baye Abdou ñu bëgg a xam kañ nga door njàng mi ak kan moo la ci daan tàggat
njàng njàng mi moom ne wax naa la ko ba tàyyi ne naa leen at ma nga xam ne loolu ñu wax ràmm ba ak xiib ba ñu ca bari ndakaaru ya laa dal jàng ci pirum ndëri pir laa jàngal xuraan ña ma jong doon jàngale naa du- duñu woon murit rek wax dëgg yàlla ba ma jàng alxuraan ba man alxuraan loo alxuraan rek nekk sama dënn bi moom rek laa xamal moom rek laa bëggoon sama baay di ko baax daal di ma ne daal di ma fa jëlee ne maa bëgg nga jébbalu booba xam nga luy jébbalu mu ne ma sukkal jox sëñ bi ne sa ñaari loxo ne ko jébbal naa sa bopp adduna ak alaxira ma daal di sukk jox sëñ bi ñaari loxo mu ne ma waxal ma ne ko ah man kat mën naa ko jox ñaari loxo mën na maa sukki waaye alaxira moom yàllaa ko moom saa baay def ab daanukat daal di daal di cee tàng lool nag kii ma daal di ma daal di wax ma daal di ma daal di wax noonu ngir bañ saa baay mer waaye nag taxut nag mbir ma dugg ma ma ndax boobu alxuraan rek ma dugg waaye bi nga xam ne bi ànd saa baay ànd ak moom nu màggal si Tuubaa ma xool ko juma ju mel nii tilifi la am tilifi la am bëriwut am saa bët bëri koo gis rax ca doole itam nitu nitu sëñ Tuubaa nañu mel ak déggoo ga te yooya jamono bëriwut am ak ma xool ko xool ba yegg sëñ Tuubaa dugg ma lool te diban sa ba may ñibbis ba may màggal si kenn yëguma yàlla dogal ma daanu ci saxaar dama tolloo njaarim rek ma daan saxaar bi ma daanu saxaar démb rek ñoo ngi ma koy fàttaliku démb démb foofu nag maanaam ñoom ñëpp ñoom ñëpp maanaam wago bi ma daanoo ak wago we ci gannaaw ak wacc wacc kanam ñi ci saxaar gépp da yooxoo ñu ne waaja dee na keroog yàlla dogal wax dëgg yàlla dara dalu ma ma daal di jóg nag yor xelam gone daal di jóg toppaat ci saxaar di dox alkaati bi nekkoon ci saxaar daw bi saxaar taxawee rek mu daal di wut si ma ne ma ana ki daanu ma daal di wax moom ne na ko mën a mu daal di may fab tungoom ma ne ma kii mooy baax yaay waaye boobu sëñ tubaab bi ma jëm si rek xam naa yaay ji jële waaye sëñ tubaab bi ma jëm si te xamu woon lu mu doon moom moo ma tëyal boppam foofa nag ñëpp nag di soow naa nguur si ndax yaa ngi fàttaliku at moom yaa ngi fàttaliku at moom wax dëgg yàlla fàttaliku ma ko Waaye yàgg na.
waaw waaye yàgg na yàgg na lool ñu- ñu- ñu- sama yaay jooy ñëpp wër ko wër giñ ma wër moo tax sama yaay jooy ma ne ko saanay bul jooy fii fii nga xam ne fii laa jëm bu doon te ñetti fan it dana fi dëkk ba nga xam ne bi nag ci bi nga xam ne màggal si naa Tuubaa ba delluwaat sama sëriñ ñëw fa rek ma jug ànd ak moom sama baay joxuma sëriñ bi nag sama yaay joxuma sëriñ bi man maa jug rek ànd ak moom dëkk fii fi Mbàkke Bawal tàmbalee muritu muritu métti lool nag métti Euh, ku la ne daara métti na ku la ne daara tërbiye métti na dafa waxe ba kanam wala nga xam ne xel dégg ma am fa ñuy jaarale daara tërbiye jaaraluñ ko fa man muritu gën doon muritu wax dëgg yàlla euh, wax dëgg yàlla wóote naag wóote naag euh, të- tërbiye fii mu nekk yi ma gis sunu borom dogal nag bi muritee matti lool nag ma daal di nag ne ñii de dañ maa xamut daal di ne damay damay ñibbi dama ne damay ñibbi fas yéene bu ngoonee bu saxaar ñëwee ma dugg ci ñibbi suñu dëkk te itam daal daal di kee génn bu baax a baax yàlla dogal ñu ne ma nag bis bi may xaar loolu nag ñu ne ma sa yaay ñëw na ñëw na ci kër ga fekk booba noonu ci tool ya Eh, sëñ bi ne ma atin dem ndax dalaa nam dalaa nam bi ma dikkee rek maa ngi yor ak naawal ak ak laxasaay sama yaay nag daal di may joxor bi mais di ma wax waxi démb yële ndax borom fas woowu ci buntu kër bi mooy sunu maam buur si waaw waaw Coumba Ndoffène Diouf ak yàlla yi man sama sama sama sama sama maam nga jéggal ma ci tur yi sëñ Tuubaa rek a baax sama baay saago ñu Diouf la tudd waaye dafa jébbalu ba muy jébbalu tasaf ak sëñ Saliou ah, sëñ Mourou Moussa tudd ko Saliou saa maam nag yàlla la tudd ya doo dëgg ñu naa doo yàlla doo yàlla yàlla jur saa baay saa bari tawam ci ci ñooñu ci ñooñu laa kii sama sama mag yi nga xam ne maa topp ci moom ka mu topp ci moom ku ma duufin duf mi lañ ko tudde Euh, euh, moo- ci- yooyu- xam nga yooyu ko ci ci ci ñu- ko bàyyi ko foofa Eh, ñu- ñu- dégg nga am doo xam luy muritu ma ne ñii dañ maa defal jaam foofu nag su nag sama yaay naa ma doon noo kenn koy daw rek bu waxee na ma sàmba nga tuggumul mu jàmba nga tuggo lambay def nii def nii def ne buurub gaat buurub dënd xanjar yi man ko nee ñu nee ñu doo ko man de te doon na kenn ko doo ma daal ni ko saande yi loolu kenn du ko fii fii suñ too afe ne daal di ko ne waaye dinaa ko man mu kàddoog sama yaay googee moom ma fi bàyyi benn gëni waaye bi ma ko toppee nag sama sëriñ nag boole mag sëñ Fallu li nga wax dëgg la gu wér sëñ Fallu ma jëkk a jox mbubb ci àdduna suñu mbubbam jox ma mbubb ma ba ma dikkee dama koo jox sama sëriñ ndax booba sëñ dara jaay sëñ Fallu ji li muy bari bari sama sëriñ bii ne ma waa góor rek laa doon ma gis rek bëccëg bi rek muy ree ma bég lool waaye mbubb mi kere ba ma ko joxee sëñ sama sëriñ keroog laa mujj gis mbub ma mbub ma itam sa baay Ibra Faal mii mage rakki daam Faal moo gis ma gàddu mbub mi mu ne ma abdul bu sa mbub mi xeeñ na cuuraay lool di muy mbub di xottiwoo ko ma ne ma daal ma ne ko sëñ Fallu ma ko jox fa ma ko naan sëñ Fallu ma ko jox mu daal di koy sol ma toj nopp bi wallaay wallaay boo yoboo boo jógee fii dem laaj ko ma ma ko tojoon mu ne boo yoboo rey ma waaye dinaa ci barkeelu ma summi mbub mi daal di gàddu mbubb mi bi ma dikkee jox sëñ bi mbubb mi sëñ bi nag bis bi rek muy ree rek waaye nag am lu ma sëñ Fallu wax nag li tax booba ak tey may jàng sëñ sëñ Fallu na loo bëgg waaye loo bëgg loo bëgg waxal loo bëgg saa borom def ko ma ne ko damaa bëgg di jàng xasile di way sëñ Tuubaa ku ñu wax sëñ jibriloo moo ne li ma ci jublukat léegi maa ngi wax ak yow waaye maa ngi wax ak malaaka yi ak yàlla seera seera sama cër yi sama cër yi yàlla leen bind te xam naa fennal wàllu yu lu mu doon sëñ jibriloo moo ne loolu day nit mu mu nitu ne fanweeri at te dégg ko su nga ko bàyyi ko waaye bàyyi ko wax wax loo bëgg ma ne ko Mbàkke dama bëgg di jàng xasile di way sëñ Tuubaa mu ne ma ngay lan ma ne ko dama bëgg di jàng xasile di way sëñ Tuubaa mu ne ma tàll ma tàll mu tufle loolee nag dama yaakaar ne moo waral nag li tàmbalee quarante ma dal jàng ma dal ma dal jàng ñu ne ma naan neel baa ba ci 2008 may taxaw ci baas yaakaar ne bariwul saa morom yu koy def loolu nag du xam-xam dug neex baat sëñ Fallu bul fàtte la la la la la yàlla waxan la sëñ Tuubaa waxan rasulullah yi daf ne dolle nañ ko tëbb nañ ko amaduhu rabbul anam bi jundam la kitab li haddidi laa li xam ardo si taasumi dolli nañ ko dolli googee nag moo tax ma am juróom-ñaar fukki at ak nangam di yëkkati xasida sëñ Tuubaa yi mu neex doomu aadama yi jërëjëf Baye Abdou xam naa sa xol fees na ci Cheikh Mamadou Fadal waaye niñ ko waxee woon léegi xëy na loolu sax danañ ci amal beneen jataay boo xam ne nii sa diggante ak sëñ Fallou rek lay doon waaye sa diggante ak sëñ Moustapha Sy
waaw sëñ Moustapha Sy day jër baatam sama sëriñ jàngkat bu ne daana daanaa ko roy jàngkat bu ma mas a dégg kàddoom rek mën naa ko mën naa maanaam mën naa na may waxe Saliou Thiam lang laa jëkk a taxaw fi moom di jàng ak sa baay Mor Ñang mii laa jëkk a àndal ab daayira di jàng Mor Ñang mii ma la ci tegaat sëñ sëñ Cheikh Fall sëñ Cheikh Fall Xataaba mu neex ma lool ma tegaat ci nag sëñ Aliou Fall mu neex ma lool ma tegaat ci kër ko sëñ mut lay taalum sëñ bay saar ba nga xam ne dafa neexal sëñ Fallu sëñ Fallu di ko jàngloo ma te- ma tegaat ko ci jëkk ba yàgg nag ma sëñ seer na ma sëñ Moustapha Sy mooy samam jarbaat te itam rôle bi ak mu xarit Europe bi moo koy génne koy roy dangay roy koo xam ne boo waxee ba noppi ku la diglu itam bi ca teg baat ma daal ne kon baax na waaw sama sëriñ dal di bind ab leetar màggal ak Tuubaa ñëw mu ne ma demal jox sëñ Moustapha le- lettre bi ma dikk ne ko sëñ bee ma jox lettre bi mu ne ma sëñ bi sa bàyyi la wala sa wala wala sa sëriñ la wala sa lan la ma ne ko sama sëriñ la moo ma yar ci daara ji mu ne ma ah benn la rek daal di may kale de xam nga sama kàlla itam ndax tukkulóor tukkulóor ak séeréer daal di may kale waaye mu ngi may kale ngir doomi nijaay ndax sama sëriñ nijaayama daal di ma ne toolab suñ tubaab bi nag eh, daf maa bëgg rek waaye toolab suñ tubaab toolab suñ ba suñ tubaab ko moom daal di ko nag bisimilah daal di jàng leetar bi ne sëñ bi nee na may ànd ak yow ci màggal gi di leen dimbali waaye dimbali gi itam ndax dimbali ndaw dimbali gu yomb dimbali goo xam ne xasile yi xasile bindu ma ko sëñ Tuubaa ko sëñ Tuubaa ko bind Euh, mu fekk ngay jàng xasile mu jëkk mu ngay jàng xasile bëgg gu mu la bëgg ak gërëm gu mu la gërëm tax mu boole maag yow ndaw dimbali gu yomb Euh, daal di keroog la daal di ubbi euh, léemu màggal gi ba mu léemoo dafa daal daf ma daal di wax ne bismillah ma daal di yëkkati roy ko waaye keroog ne na ñokket fab kaala kaala ma ko booba mucc mii tuuti la mucc na ma yow kat sëñ bi kaala xam nga kaala lu mu doon ma ne ko jox na ma kaala gi de mu ne déet joxul la kaala gi dalaa kaala joxul la kaala bu la joxoon kaala gi dala koy gàcce rek dala koy gàcce rek wala nga noppi mu jox la ko waaye daa fekk ngay da ngay jàng ba yàgg mun na ñoo ket tiim la fab kaala gi kaala ko ci sa bopp Euh, ma yaakaar ne kaala googu nag euh, lu lu moo dama ma yaakaar am lu mu doon def ci man ma man ko lool nag ma man ko ma man ko roy lool nag bi ma ko bi ma ko bi ma ko mënee roy lool nag moom ci boppam daan naa jàng ba yàgg mu xaw a soppi ko sax moom sëñ Moussa si ci boppam ndax euh, di jàng ba yàgg am ku lay roy te man ko lool euh, dina euh, te te te, te maanaam du sama nijaay du sama baay bëgg gu ma ko bëgg rek ak ni nga xam ne noonu laa ko noonu laa dippee baat bi moo sore ci moom Euh, ba tax na màggal gi lu mu mës a xumb xumb xumb bu jàngee bu bu bu bu bu waxee ba noppi rek na bisimilah ba fi mu ne may jàng ci màggal gi Euh, bi bi nga xam ne ma nag li nga xam ne nag ma wax la ko ndax dangaa wax sëñ Fallu wax sa iblaat sa iblaat moom sama sëriñ moo ko ne kii de su ma amoon la sëñ Tuubaa jox Seex Rafal dinaa ko jox ci dëkk bu ñu wax mbalem wador ci njóobeen saabalaam foofu la ma sëy laa doon dégg may jàng keroog jox na ma xaalis bu bari ma ne ko mbàkke xaalis bi maa ko moom mu ne ma addiya sëñ Tuubaa la ma ne ko mbàkke dama ko bëgg a defat addiya mu ne ah baax na baax na ma ne ko man damaa gis ci yow loo xam ne moo ma gën a néeg bu ñu jël wurus ba mu fees mu ne ma jàpp demoon loolu la mu doon ma ne ko doome sëñ Tuubaa nga dégg leer de man séréer dong laa di tuubit mu ne lee lee la ak ba teef daal di yëkkati fukki dërëm ak juróom denc xaalis bu mag boobu ba mu ma joxoon ne ma neen ñokkat jëfandikoo ko ma dimbalee àdduna galaxe dootu tumuranke ma daal di jël fukk ya ak juróom lu ne jaay naa ko ca ngir bëgg fukk yi jeex mënu ma ko ndax boobu jamono yi woote na lool nag xanaa kon loolu bokk na ci li tax nga di ko sant de moom suñu borom.
oui li li tax ma di ko sant naa la dimbali àdduna ak àllaaxira juddu tumuranke waaw bokkut ak li mu mënoon jàkk na ma na ma doo gis sawara mukk doo gis sawara joojee nag moo tax ma di ko sant nag cant gi it mu ma cant gi it suusuma ko yàlla ko jëkk a sant baayam sant ko ndax ndax baayam lu ñuy wax fat u màkka ker ba rasulaa jóge minitu mu dama jëm màkkatal mu karam du ubbi ci kaaba ga daani xirim ya allahu akbar ja màkk gépp riir na waaye sëñ tubaa bi nga xam ne borom ndar woon na sëriñ sépp ñu ñëw mu xupp leen weddi lu leen yàlla sëñ tubaa taxaw ci biir ci biir ci biir borom ndar wax na ne keroog jàkkaarloog yàlla aji bind ji allahu xilli abadan wallahu حبي والله إله إلا الله لو كتابي من رئيس الأرمة لخاتم الهرم عند الأرمة لست بولد ولست بولد يا ربي كل ولد ما ولد أخفيتني ما لا يكون لأهل يا باتن ليس له كفن أحد أبلي بحق قل هو الله أحد عباد فرد خير مغرم من تحت لأن يقول هو الله أحد الله ثم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفن لأن الله أكبر ñaari rakka yooyu Cheikh Abdoulaye ko tullanti te yoon walaawan te yoon walaawan Euh, dafa dem gane ji doomam ju baax ji sëñ Cheikh Gaynde Fatma te Ndakaaru Senghor ne ko yónni ci Abdou Diouf boobu Abdou Diouf premier ministre la ne ko dama bëgg a nuyu neel sëriñ bi dama ko bëgg a nuyu si ndax dama bëgg a waxtaan ak moom sëblaat ci xam-xamam bu bu yaatu bi ne ko gan mooy nuyu ju dëkk ginnaaw yaa moom yaa moom ndax dañu yaa moom dëkk bi yaa moom réew mi man may gan a man may gan ci dëkk bi kon naa la nuyu si Senghor daal di ree daal ne wax na dëgg daal di ko ne dinaa la xaar bi nga xam jikkee nañu ba tisbaar rek sëñ bi sëñ bi laa jullee tisbaar rek mu dal di jóg ànd ak yoonu murit yëpp jëm kër Senghor ba mu demee toog na fa lu yàgg lool Senghor di recevoir ay gan maanaam ay député ki ministère ak ay ak président maanaam ambassade yooyu yooyu ñu mu di kii ba mu gudd ba mu gudd ba nga xam ne cinq heures passé na bi cinq heures waaw bi cinq heures jotee Senghor dal di dal di dal di dal di génn dal di ko ne Mbàkke ba mu ko ne Mbàkke sëñ da ko néew ko néew ko Senghor da ko ne ah bi nga ñëwee daa tasante waxtaw sa borom wi jot kon nu def ndigal li ba noppi soog a waxtaan. loolu itam dañuy joxaale yow itam yàlla na yàlla na yàlla may fa dugg.
jërëjëf Baye Abdou xam naa fi mu ne yaram bi xaw naa tàng lool te boo jooyee bu ko defee ma jooy émission bi day daal di xaw a xorom lool ba tax na kon dañuy jox mbokk yi dox daje ëllëg te dañ di leen xamal ne daañu la dalal beneen jotaay bu gën a yaatu bi jërëjëf yéen ñu leen ànd ak